yaay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la masaw waaye tamit di la jaalewaat li nga xamante ni ñun ñoo ko bokk euh, muy Aziz Dabala doomu jàmbur fay naa leen di leen dokkeel di leen sant di leen gërëm bisimilah alors yaay tey mu nekk li nga xamante ni moom moo di huitième jour Aziz Dabala euh, ginnaaw bi nga xamante ni génn na àdduna tey moo nekk huitième jour bi absence bi nga xamante ni sa doom am na ko ci sa dund naka nga koy dundee. xanaa dund bu metti rek. manqué ma rek choqué ma rek waaw métti na ma lool ndax foo tourné gis ko soo ko déggoo gisul tam nga dégg am mu la woo waa gisoo ko déggoo ko nga xam lii moo ko waral te soo ko gisatee yaa ko fekk ci li ñu wax métti rek métti rek doomu jàmbur métti rek. Mhm. yaakaar bu tas nga toogee waaye tamit naqar nga toogee mu nekk loo xamante Sénégal yëpp ñoom ñoo ko bokk ak yow taxawaay bi Sénégal am ci li nga xamante ni yaa ngi koy dund noo ko jàngate. xanaa rek métti rek dee mastawu rek waaye li ma dund moom metti na moom gis naa Sénégalais yi ñëpp ak àdduna yëpp ni ma jàppale waaw waaye ku yàlla moo ma joxoon moo ko jël bi mu ko jëlee ki gis na résultat yi ma sant rek di gërëm yàlla ak yéen tamit di leen gërëm ñëpp di gërëm waa àdduna waxuma waa Sénégal gi mu juddoo waaye waa ndax ñépp woo nañ ma mag ak ndaw góor ak jigéen ñu ma xam ak ñu ma xamul ñëpp woo nañ ma waaw di leen sant rek di leen gërëm waaw. alors ñu gis ni nga xamante ni ñoom la doon liggéeyandool seen taxawaay waaye tamit Coumba Gawlo am ci taxawaay boo xamante ni si bu gën a spécial la diggante ma Coumba la lan la woon ba tax mu génn ci réseau yi di ko défendre ak kàddu yi nga xamante ni ñu ngi koy teg ci kaw mu mel ni da ko naqari. loolu de seen liggéey la waaw moom doon na liggéey ku ñëpp la liggéeyal Aziz ñëpp la liggéeyal. ne ma sama liggéey am kii amukaay waaye Coumba Gawlo sama ndax am na fulla am na fayda te man dox doxuma ci fu lu ak fayda man Aziz ku am fulla ak fayda ma ànd ak yow boo indee ñàkk fayda même place ji fële même te dëgg li dëgg la ak fayda la doon doxee moom la ñu waxee dox ci day caaxaan waaw nit ñi bàyyiwuñu kenn waaye bàyyiwuñu kenn moom waaye Aziz fulla ak fayda rek su dee amee liggéey ku ko woo mu liggéeyal la ku amul liggéey mu toog artiste yeeg journaliste yi yéen ñëpp ñëw ngeen am ku ñëwut ku ñëwut fii moom amul am ku yónneewul tam ñëpp ñëw nañu ñëpp yónnee nañu kon sant ak ngërëm rek sant ak ngërëm rek. Hmm. taxawaay bi nga xamante ne moroomu fecckat tamit tamit amoon nañu ko ku ci mel ne Ndeye Gueye gis nañu ko ak ñeneen ak ñeneen hmm. waaye tamit dégg nañu ci say wax nga ne ki nga xamante ne moom moo di Youssou Ndour hmm. woot yónnee na fi waaw voilà Ndeye Gueye mi fi woon duñ enterrement bi yëpp de mi ngi sa ëllëg yëpp ndey mi ngi fi Youssou yónnee na ménagère am xale yi mënuma leen lim mënuma leen lim mënuma leen lim moom ñëpp ñëpp ñëpp ku ñëwoo rek yónnee nga ku ñëwoo rek yónnee nga ndax man nag laa man maa jàpp sama esprit moo jàpp ñëpp waaw ku ñëwul rek yónnee nga ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp am ku des waaw léegi ñëw ñoo de ñoom ñëpp daal ñëw nañu te soo diimee da ngay juum da ngay jël ñi bàyyi ñii na nga ko <clears throat> masaala ñëpp a ñëw daal ñëpp a ñëw sant ñëpp sant naa leen gërëm naa leen hmm. alors yaay mu nekk loo xamante ni si lu xaw a doy waar la parce que tamit sa doom ki nga xamante ni moom la daan àndal guddeeg ba teg suba ngoon ba tout temps sax dañ koy dégg ci say wax euh, ñu gis ni que dañ ko cee taqal ba tax ñu dem ko yóbbu ko sous mandat de dépôt mu nekk mbetteel ci waaye mu nekk mbetteel ci Sénégal yi yëpp loolu bi nga ko déggee automatiquement loo xalaat. kooku moom mbetteel la mbetteel dëgg surprise la waaw may xel yàlla waxal yonte ba ku déggoon kaanu teg ko danaa wax taqi wu laaliwul jegewul laaliwu gisul déggul billaay wallaay sim su fekkoon rek dan maa wax rek ma noonu te kenn woowu ko baa kenn tuur turam billaahi ku teg kaamir naa ko waat ni ko laalo bokkul gisul déggul waaw ah, ah, àdduna mu tëddee noonu tëddee noonu tëddee noonu rek àdduna moom mu tëddee noonu ku nekk daal na nga xam si nga teg sa tànk fan la ndax Aziz mii dana yeelu ba ñu bay Aziz mii dina leen yee na yee ñëpp kuy xale ni ci diaspora bi kuy xale di liggéey kuy xale di ànd ak doomu aadama yi ki kuy xale di génn fu ne lii dana la yee ma am na xam mu amul waaye lii daal dana la waaye tuuma ji dafa mel ni yemul sax ci ki nga xamante ne moom moo di Nabou Leye waaye am na benn borom casquette boo xamante ni ñëw naa fii jël ko Sénégalais yëpp di ko taf di ko di ko saaga di ko wax di n'importe quoi bi ñu demee ba ci biir dañu gis ni que taxawti affaire yi laalewu ci tuuma yi nga xamante ni teg nañ ko ci doomu jàmbur ji ko def ko loo xamante ni si mën na sax def loo xamante ni waru ko na def sax ñu jàppan ko naka nga gisee lu mel noonu. waaw métti rek waaw waaye lu ci erreur loolu yëpp ci erreur la ndax taxawu laalewul bu seetaan ñëwee seetaan ñëw na rek bu bagaar ñëwee bagaar ñëw na rek loolu tooñ nañ ko waaye erreur la waaw nit ñi kenn mën leen wax kenn mën leen def waaw loolu erreur la métti na ma ndax bëgguma ko torturer kenn bëgguma ko menacer kenn waaw ku ci ku ci bokkul ci waaye comme dañuy def recherche recherche moo noonu dañuy seet rek dañuy seet ku ci bokk yaa ngi ci ku ci bokk ñu bàyyi la nga dem bu amul benn problème amul benn alors moom muy di Demba muy borom casquette bi est-ce que xamoon nga ko ci koñ bi parce que kere bi ma ko introsé daf ni moom moo yar assise ci seen kanam la doon màggee di ataayandoo ñoom di defandoo ñoom est-ce que xam nga ko borom casquette bi nga xamante ni ñu ko doon taf. borom casquette bi sax gaaroon xaw ma ko. ah Demba Mbaye ah, wax na dëgg wax na dëgg man ma xam xale yi nga gisee nii du ma xam xale yi ndax du ma leen xool waaw wóor na yàlla loolu dëgg Demba nañ ko fekk mu ngi tooñ nañ ko. ñoo xalendoo ñoo attaayandoo. non yóbbuwuñ ko mi ngi fi. waaw mi ngi fi voilà. dañ tuumaal ka moom affaire laal na ci affaire ndax li mu wax. Mm, mm, mm, moom beneen euh, doomu day Aziz ak Demba ñoo ànd ko dafa gaañoon tam yàgg na waaw doomu kii waaw muy sama sama rakk bi ñu ànd boobu ba léegi Aziz ak Demba doomu bàjjen da ko def da koy lu ne bokku ci bokku ci xam naa erreur la rek ak recherche ba ñuy wax recherche ku ne naan kii wala kay naan kaa te yoon bi ci dëkk bi force ñu ñu xool suñu xo boo si deful dara laaloo jegewoo nan lay bàyyi nga dem amul benn problème mm-hmm. xam nañ seen liggéey xam na ku ci bokk ak ku ci bokkul amul benn problème mm-hmm. alors yaay mais tamit li nga xamante ni moom moo gën a garaaw ci mbir yi mooy que ginnaaw bi nga xamante ni sa doom génn na àdduna ñu koy ñaanalaat bu baax a baax ñenn ci Sénégal yi dañuy jël ay kàddu yoo xamante ni tegginewul di ko méngale ak image am te génn na àdduna ba pare kàddu yi mel noonu boo ko dégg en tant que yaay te sa doom dem lan la la doon def kooku daal sama doom sama sët méttiwu ma dérangé wu ma yàlla mi sàkk bàyyiwuñu ko gin ngi mindee wuñ ko bàyyiwuñu kenn kenn président de la république bàyyiwuñu ko bàyyiwuñu kenn duñu dem duñu bàyyi keneen dem duñu dem duñu bàyyi keneen dem doo baax doo bàyyi keneen baax moo waral lii rek kooku bañ nuñ ko waxee ku wax soo gis sa bopp buñ la gis si biir waaw li nga may wax a gisoo ko ci man maa ngi dund di tedd ba dee di tedd aadama yëpp gis ko nga di ma waxal lu bon bàyyi ko mu wax wax mooy lan wax amul sens jëf moo am sens ak yàlla ak témoignage mm-hmm. waaw man de sant naa gërëm naa dara dérangé wu ma ci waaw comme moo fi jógee beneen naqar bu ëpp boobu amut comme moo fi jógee daa am ñaas ak di réew ak du ma wax yaay mère Mbaye la wax mm-hmm. mère Mbaye ma koy dimbali ma xam ma mère Mbaye xaw ma sama yaay moo neex mm-hmm. <laughs> sama yaay moo neex daahi waaw parce que moo fi jóg xay wax ak kasaaw kasaaw wax boo xam ne ah Sénégal yi ku ñu ba ma ko nag la solution baa ngoo xam sa doom lu ko nit xam-xam yow yaa ko gën a xam Aziz ban genre nit la woon Aziz ku baax ku sérieux fii la juddoo ginnaaw raay gi la juddoo ba tool ni mu tool kenn musu ko àtte xeex rakkam bi tekk jabar ci biir néeg bii muy Cheikh bas naa am histoire ma sa waranka bii daal ba Aziz ak kafi mel naa léegi ma ne ko Aziz ñu ñëw daw si ne ma ñëw ma yaa am mii mu ne am Cheikh ngay xeex ci marché waranka ma gëstu gis Aziz xale yi liggéey la ma ko Aziz dawal gaaw Cheikh ma ngay xeex marché waranka mun nga ni ma yaay xeex man xeex ko atewu xeex dem billahi wal azim ak kasi bi ma naan sama génn gi man xeex dafa ragal histoire bugg bagaar du xeex dafa ragal man yaay xeex yàlla tere xeexul xulóowu bu texee sa marché waranka bi di atte yow yaa fa dem ñee ñoo ko at indi ko billaahi te bokk moom day bàyyi muy borom néeg bee waaw kon nga xam ne moom nitu jàmm la boo ko gisee muy dem nga xam ne soo déggee ay kàddu xam ne nitu jàmm la mhm. mhm. Mhm. mu nekk huitième jour bi ana ngay ñaanal sa doom ñaanal ko rek yal na yàlla xaare àjjana yàlla mi dimbali ji jàppale doomu aadama sàkk leen sàkk ñu sàkk ñun ñëpp yal na ko malaaka yërëm teertu yàlla na xew ji pii ji àjjana si def si ñoom fa fekk ak ñeneen fa fekk ak doomam bi mu àndal dem muy waali waali daan ko yàlla yërëm moom tam di xale bu yaru la xale bu baax waaw xale bu am jom ñu xamuñu ko sax gaa dafa ñibbi si Aziz rek bilaay walaay mbokkam yi lim naa ñu Aziz ñun tam xamuñu leen ñoom ñooy dox ba daje rek fekkoon man rek mi ndey ndey Aziz xaw ma waali bàyyi Aziz xaw ma la waaye c'est la même chose ñooñu tam xamuñu xamuñu ñunu ñun ñoo ñàkkee xam ñun tuuti noonu la ñàkkee xam mi fi àdduna la ñooy dox ba daje xale yi ñooy dox dox ba daje xale ñooy indi lu ne xale yi ñooy def lu ne waaw kon nag comme ni ne ko yàlla indee ñu jàppee ko noonu rek ñu jàppee ko noonu bi mu ànd ak Aziz ba léegi nag lu mu Aziz toxal baal lu mu yónni moom da ko yónni defu benn problème yàlla moo dogal li tax mu jógee si ñëw ci ko Aziz yàlla leen yàlla boole benn bés moo waral lii rek moo waral lii. alors ñu gis ci ñenn ci famille Aziz li ñu waxee neexut ñenn sénégalais yi bi ngeen déggee loolu yéen famille Aziz nan la leen def. muy ah muy que liñ dox naan xamuñu Aziz xam bokkuñu ci ci Adama Awa. ñu bëri ci Sénégal ci waali du moins mm-hmm. euh, ñu bari ci sénégalais ni dañoo wax ni ñu waxee baaxul mm-hmm. yéen bi ngeen ko déggee yéen famille Aziz nan la leen def. dara dara dara def ñu dara noonu la seen xel toll ku ne ak nu xelam toll rek ku ne bu ne ak sa version ku ne ak sa kàddu waaw ku waaw kàddu yi yemuñu waaw ku ne ak sa xel mais amul benn problème de koo xamul xamu la koo xamul rek xamu la waaw noonu la ñu mën a waxee ñun tam noonu rek la waaw waaye amul benn problème. ci biir loolu ñu waa famille Wally gis ngeen leen ñu ñëw fii wala sax ngeen dem fa yéen. wala ngeen gis ñu woowee dig. ma dem ak sama doom ki taxaw fii sànq ak sama caat bu jigéen bi ak sama beneen doom bi demee dig gis nañu foofu waa ñaari nijaayam ak magam. gisante nañu foofu ba wax ak kii kay taxaw mhm. waxtaan naan waxtaan nit ku waxtaan bu rafet bu yaatu waaw. xam nga dig pour ñu pour ñu entendre leen. Mhm. Mhm. mooy dig pour waaye wax ñu fa benn baat boo xamee ni bii ñaaw na ñoom waa ñoom famille waay ba baat bu ñaaw waxuñu ko. kay yooyu yi ñu wax na naa xamuñu loolu sa maa ngi koy doog a dégg waaw maa ngi koy doog dégg. waaw ñu koy wax waaye man tase nañu dikk ñoo bokk yendu foofu waaw ba ñu entendre ñu ñëpp ba bàyyi mais amul benn problème waaw ba ñu wax rek ñëw fii man ba ñu ñëw ñëw fii ñu su dëj bi passé dañuy dem foofu mais boobu ba léegi ñu toujours ñu am gan toujours ñu am gan toujours toujours toujours waaw génn ma fenn fenn fenn loolu la moo tax demaguñ fa woon waaye su lii passé dañ fay dem ñun tam parce que doom ñu ñun jurit lañu man mag laa maa ngi jur yéen ñëpp waaw yi dogal suñu borom ba la waaw booga suñu borom ba agsi dañuy xam ne si na rek waaw loolu la waaye sikkuñu famille baali amul benn benn problème xale moo jógee mugum jëm bu jógee si kër nit yar la nga am 18 ans ba 20 ans di dem di fekk ji nit ah te bàyyi si kër si kër ndey ak si kër baay xam nga loolu xale rek moo koy def xale moo koy def ah. da koo bëgg rek da koo bëgg rek dimbisil ko bii daay wallaay waaye Aziz yaru ko xamu ko sax ni ma ñàkkee xamee noonu ko ñàkk xamee waaye noonu comme def ko Aziz Aziz tam téye ko rek def ko rakkam bu ko yaay jarbaatam loolu la. alors yaay lan moo la gën a marqué ci sa doom maanaam ban anecdote loo xamante ni si mën nga ñu koo nettali loo xam ne dalay neex ci sa doom muy Aziz. ma dund moom ci mu neex bari na <laughs> bari na te ba ci tabaski yi paase rek ma maa opération waa jóge nii tabaski yi paase. ci mois avant opération su génnee dem sama kër benn doom bu nekk benn baraak bu dese tabaski dese une semaine desul une semaine sax ay quatre jours yooyu ñu indi si ma ma si tabaski yu ñëw mu jógee këram ñëw ñu toog ci ne ci kaw di xar yi muy nag yaay naa leen <laughs> naa leen te ambiance mu toog nii di ko gis si vidéo yee sax waaye muy waay muy may fecc fecc loo ma fecc fecc fecc fecc ma fecc fecc mu yàgg ree sama yaay moo neex waaw vidéo yi sax tasaare na ko bilaay walaay mhm. bi ma feebaree toog fii te mu yaa ñëw vidéo mhm. waaw filmé ma filmé ma am na way bu ma bu mu fente sax mhm. tegal na ma ko waaw man daal fu mu toog rek mu ut lu ma bégee waaw fu mu toog rek mu ut lu ma bégee ak man bilaay walaay bilaay walaay kay ñi def jëye ji ñi jàpp ne sax ñoo def jëye ji placé nañ leen sous mandat de dépôt boo doon joxee daan ñu teg ko ci seen kaw wala yan daan ngay joxe wa ilaa ñu tëj leen perpète maanaam dootuñu génnati wala sax ñu rey leen comme ñu ko Sénégal yëpp bëggee yow lan lan nga ci jàpp ni moom la ñu war a def. ma ci jàpp xam dëkk bi am na yoon justice mi ngi fi ngi fi liggéeyam bu fekkoon ñu ñooy def suñu àtte bopp kon leneen lay waxaat waaw waaye comme mooy def ñoo mooy def seen liggéey lu ci yoon santaane rek ñu def yoon lu mu ci santaane rek ñu def waaye ñu am ci lenn décision mm-hmm. waaw. ndax règlement am na yoon am na dëkk bi am na yoon am na justice police gendarme ñëpp a ngi fi di yoon def tekk rek ngeen ñu def ko rek waaw ku ci takk rek si yoon santaane ñu def ko rek mooy solution la. jërëjëf ñu ngi lay masawaat di ñaanalaat bu baax a baax assise bi nga xamante ne moom moo fi jóge. mbokk yi borom naaru góor yegg si na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt. kooku mooy kan mooy Seydina usmaan Ndiaye boroom naaru góor grand marabout di borom baatin borom xam-xam ak borom xalwa Seydina Ousmane Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di tollu nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor boroom xalwa boroom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt 34 terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Mérina ci wetu daral bi. mën ngeen a jokkoo cabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 19.